jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu maanaam euh, Abdou Khadre Seck daal di dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu daal di invité professeur Iba bari Camara muy jàngale lu jëm ci wàllum droit privé ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom la ñu fas yéene seqal waxtaan professeur ñoo ngi lay nuyu. mais maa ngi leen di bëggee di leen ziar di wax asalaamaaleykum di ziar ñëpp di baalu ak mbokk jullit yëpp mbokk doomu aadama yëpp ci weeru koor gi te suñuy duwaay yal na ko yàlla nangu may ñu teew ko ay déwén bëri ñu tal ko fekkee ka. merci euh, professeur Iba Barry Camara ñun tim ñoo ngi euh, am mbégte bu baax a baax euh, kontaan ci wuy si bi nga xamante ni wuy si nga ko invitation bi euh, waxtaan bi nag dañu koy doore ak li nga xamante ni mooy loi parrainage bi ndax loi parrainage bi ñu ko fi indee def ko ci élection présidentielle 2019 yi coow li bëri woon na ci bari woon na ci ay candidats yoo xamante ni tey dañu leen recalé woon ginnaaw élection yi gis nañ ñenn ci opposition bi ku si mel ni maître Abdoulaye Tine defoon ab recours porté woon plainte état bu Sénégal ci kanamu CEDEAO fan yi génn na CEDEAO wax ne Sénégal na supprimer li nga xamante ni tey moom mooy loi parrainage bi fii ak juróom-benn weer yow euh, professeur lan moo ci sa xalaat. waaw mbir boobu dafa am effectivement loolu moom mooy xew-xew jamono temps yi nii. waaye nag dañu fara war a wax fàttali rek dafa am lu ko jiitu. loo xam ne lii nekkoon na situation mooy biñ doon lam-lamee affaire du parrainage naka la ñu. rationaliser ñi nga xam ne ji moom mooy parti politique yi xam ne parce que ñëpp xam nañu bëri na. parce que trois lu tolloog trois cent. parti trois cent et quelques ñoom ñëpp ku suñu bëggoon dem élection dafay xaw a dafay xaw a compliqué. Mm. léegi nii ñu ne woon nag il faut ñu xool naka la ñu koy jëfe ba wàññi ko ba nga xam bii ñëpp du ñu mën a demandoo. Mm. waaye nag ci eh, li nga xam lii moom la ñu jàpp ñoom ñëpp dañ see d'accordul mooy affaire parrainage bi. parrainage bi ñëpp d'accord nañ ci de ci principe bi. à son temps parce que damay rappeler ci principe bi ñoom ñëpp a d'accord mais nag ni ñu koy mettre en œuvre ni ñu koy doxalee ah foofu la ay division amoon la ay euh, nu mu tudd jeexi jaaxa amoon. ba nga xam ne bii dem nañu ba nga xam ne bii mbir mi digguwuñu président ñëw jël décision bi ne eh léegi ñi laa koy defee mais opposition bi. kenn en fait noonu mu ñu ko tëralee tey kenn àndu si woon mais nag xam nga njiit njiit la mu am majorité assemblée. même su fekkoon ni sax ki xoola affaire boo xam bi loi bu doy waar la ala kulli xaal su amee majorité moom da nga koy dem dugal te dinañ ko wote. waaw mais mais mais professeur euh, comme ni nga ko waxee nii sànq ci parrainage bi opposition bi société civile bi àndoon nañ si mais jëmmi Macky Sall ci boppam. est-ce que moom la euh, opposition bi wóoluwutoon. déedéet xam nga parrainage bi principe bu parrainage bi jur comme sax ñu xool ñan ñoo war a dem kii ñëpp parce que dañu ñëwoon léegi nii parti bu ñu dem donc il fallait ñu xool neen loo xam ne dañuy segg li nga xam ne bii dinañ wàññi nombre bi mais loolu ñëpp si daa ko waroon de mais ni ñu ko defee tey. moom la ngay yi d'accord lool. nuñ ko defee. ñu ko defee moo di que ni ñëw parrainage bi naan su fekkee ni bëgg nga mu bëgg nga bëgg nga bokk ci élection yi il faut que ay ay nu mu tudd nga am euh, diggante zéro virgule huit. ah ba euh, un pour cent zéro virgule pour cent ba un pour cent ñoo xam ne ñii ñoom ñoo lay parrainer ñoom ñooy ñëw inscrire ne la effectivement yow la ñu àndal. ci sans problème kooku si lan si par rapport yi nga xam ne bii mooy ñi nga xam ñoom ñooy dem voté ji loo xam ne lii nombre du 6 millions ou 500 jeunes je crois mais loolu noonu soo ko ñëwee xool de de de facto dafay dàq ñu bëri parce que soo déggee ñu naan la 0,8 ak 1 pour cent da nga naan bëriwul waaye nag gis nga soo koy ñëwee ñëw ku nekk ñi nga xam ne bii ñoom ñooy parti politique parce que parti parti parti politique bu nekk am na ñoo àndal am na xam ne ñii yow la ñu supporté te te yow la ñu bëgg nga falu. léegi nag ñëw xool xam ni yow euh, su fekkee ni yow loolu munoo ko am nombre boobu noonu xoola yow yow donc euh, dañ lay écarter donc de facto te bu ñu fàttali ni Sénégal dañoo amoon benn ouverture boo xam ne bii amoon na ay parti yu en fait ñoo xam ne yenn coalition yu am mais am na ñoo xam ne ay parti ay can ay ay candidature indépendante nañ woon ñooñu ñëpp nga xam ne bii amuñu doole si sept régions yi mën nañu ne ñu ne ñoo ñëpp xoola du ñu bokk loolu nag la gars yi ñoom ñëpp d'accord na nag xam nga Euh, Abdou Karim xam nga li si xaw mooy lan moo nekk ni man après xam naa ne dañ si ñëwaat te loolu moo gën a justifié si sama sama position bi ma demee ne du euh, décision CEDEAO bi mooy ñëw di rek régler problème mu parrainage bi parce que problème parrainage bi c' est une affaire éminemment politique et à son temps bi ñu ko ñëwee teg xoola élection yi mi ngi doon kii mais yow su may xamee ni mbir ñu bokkoo ñun xool li ñuy xeexandoo li ñuy xool li ñuy bañ mais day. dañuy ñëw coaliser wu nekk benn benn dank ñu utiliser tous les moyens pour xeex ko waaye à son temps opposition bi mais defuñu ko woon ku si nekk dafa yaakaar ni xool affaire bi da doon yomb mais bi ñu demee ba si biir xam nañ ni effectivement mise en œuvre bi du yomb parce que imaginez nga ñëw benn nit boo xam bi xamul xamul sax lañ koy ñëw ñu ne ko jox sa carte d'identité signé fii mu signé xamul sax li mu signé la léegi ñu ne ko yow soo xasee ba signé amatoo après après ku la ko xam. et pour te dire que ni affaire boobu noonu ba tey jàllu euh, imperfection la ci kii bi mooy ñi nga xam ne nii euh, dañuy loi bee ko wax de dañoo signé ñaari yoon dañuy si dañoo pare ne ñaari nit ñooñu ñooñu dañ leen war a topp mais est-ce que dégg nga mu dégg ñu topp si kenn. parce que population bi xamuñu sa affaire bi naka deme demee mais donc léegi pour revenir euh, opposition bi si boppam ñoom à son temps war a si si la fa ñu ne eh élection du fi su fekkee ni ñu lay demee ñu mais ñoo xoolal ku si nekk yaakaar ni yow yaa gën a muus a morom wala yaa gën a représentatif solidarité boobu moo fa amul ba tey jii moo ñu indil problème bii. waaw mais mais mais professeur euh, loi parrainage bi ñu ko fi indi est-ce que tey euh, waruñu woon a jël temps bu gudd. expliquer ko Sénégalais et tout ça. moom la lay parce que yow précipitation la. ñëpp xam nañ ko ba nga xam bii ñoom sax seen biir xoola euh, bi ñu ko demee ba voté ñëw nañ si jël après ay yenn ay yenn euh, décret yenn arrêté pour jéem a ko pour jéem a rectifier yenn yi parce que précipitation alors que dafa nekk boo xam ne bii xëy na présidentielle moo nekkoo si kanam mais on n'a pas pris kooku moom ñëpp a ko xam ñoom ñëpp ko wax on n'a pas pris suffisamment de temps ñëw toog euh, saytu ko ba nga xam ne bii affaire bi yëpp ay jaar yoon mais loolu indi problème bi yëpp tey te à son temps dama ne opposition bi parce que xam nga du dañ naan toujours régime bi régime bi man je crois que dafa daal ñëw ñëw ñëw nañu ne lii la mais opposition bi su fekkee ni yow d'accord ci lii loo xam ne lii si yéen la concerné naka la demee dem euh, élection ñenn ñooy participer ak affaire tout ça yow nga ñëw baax ko par après ñëw bàyyi ba pare dem bi ñuy voté loi bi ku nekk jaar sa mais euh, nu mu jëti euh, jaar sa yoon ba ñu demee ba gis ne nag affaire yi dëgër na dëgër na dëgër na ñu mais ñu segg si ñaata mais cinq la cinq si ñaata mais euh, si euh, ñaata vingt neuf xaw ma loolu nag la ñu xamoon na ñoom ñoom nag foofu la defee première erreur bi léegi nag ñu ñëw gis ne effectivement parrainage bi am na ba tey mais wala ñu ne léegi mun nañ ko def présidentiel mais locaux local yi. mënul am. xam nga loolu moo nekk ni que ni c' était pas suffisamment réfléchi c' est nag xam nga moo tax suñu suñu suñu kii euh, personnel politique bi man foofu laa ne gis nga. il ne sa euh, waruñu nekk di profito gis lu loi dafa nekk affaire boo xam bi dang non c'est très sérieux da ngay war a ñëw taxaw réfléchir saytu ñëw woo experts yi def ay simulation ba xam en fait lan moo am problème ban conformité la am ak ban inconformité la am par rapport li nga xam ne moo nekk c'est important c'est important parce que gis nga ba tey ñi nga xam ne ñoom ñooy électeurs yi am na ñoo xam ne soo si ñi si ëpp soo demee laaj le parrainage mooy lan lu ñuy wax naan xamuñu ko loolu nag léegi nag euh, moo tax là damay damay euh, euh, féliciter parce que démocratie si noonu lay doxee c'est pas que je sois avec lui mais euh, Tine maître li mu def mais yoon la def bi mu ñëwee ñu jëm saisir le conseil constitutionnel eh, eh, waaw le conseil constitutionnel le conseil pour ñu annuler loi bi le conseil constitutionnel eh quelque part je suis incompétent pour connaître donc donc donc d'une telle question mais affaire yi ñu ne jeex na ñoom ñëpp ñu toog mais moom fa jël bind mais bi muy bind est-ce que xam moom rek bind. Mm-hmm. c'est parti fa nekkoon yëpp trois cent ñoom moom rek si bind. ñeneen ñi am nañu. Mm-hmm. moo tax yeneen parti yëpp parti parti politique bi dañ ko dañ ko war a dañ ko war gërëm sant ko. si rek xoola bu question bu cruciale noonu moom ndong moo dem xoola ne damay def recours ñeneen ñi fa nañ nekkoon boobu mooy li ma la waxoon léegi rek. ku si nekk eh, dafa yaakaar ni yow mën nga am ndam ci say moroom moo tax moo tax man la solidarité boobu ñoom seen bi et puis loolu noonu question bi ak yeneen question yu bëri yoo xam ni soo gisee euh, régime bi am doole trop ba nga xam ni dañ naan euh, président moom muy buum di buum mi te xam naa ni sax loolu en vérité amul mais c'est parce que loolu noonu opposition bi ñoom ñoo xaw a ñoom ñoo xaw a daal ñoo ñoo xaw a ñoo xaw a nooy daal pas nooy ñoom ñoo ko bëgg mais xëy li ñu war a def opposé wu démocratiquement xëy na loolu la ñu xamul te nag il faut ñu xoolaat seen biir parce que dañoo nekk foo xam ne fii il faudrait nit yi ñëw toog xool xam ni kenn mënatul dem nag yow kenn ñu ñëw xool di regrouper bu def am am pour mais pour am doole parce que mais euh, mais actuellement le régime en place lan moo def dooleem ñaata parti la waaye la ñëw agrégé. c'est ça le problème moo tax que ni ñoom tamit dañoo war a defee noonu xam ni léegi politique ak foo mën a nekk États-Unis xam nga da ngay dégg ñu naan la en fait démocrate yi ak républicain yi mais kaay ma la <laughs> mais ay yeneen parti yu bëri ñu la ñëw kii soutenir. d' accord léegi euh, professeur euh, Iba Barry Camara. Mm-hmm. léegi euh, CEDEAO dogal bi ñu jël wax ne Sénégal supprimer loi parrainage bi fii ak 6 mois yow lan moo ci sa xalaat. ah waaw léegi waaw kooku nag moom da nga appréciation bu xaw a bu xaw doy waar la. parce que xam nga damay déparé xam nga fan fi nga xam bi conseil constitutionnel dafa ne hé man question bi ah, am na benn aspect boo xam bi mënu mënu mënuma si prononcer yow mu am loo xam ne lii benn point boo xam ne benn ni d'accord ci ñi nga xam ne ñoom loolu ñoom ñoo conseil d'accord ci ñu war a ut fenn foo xam fi li naan di si olof fi mbaxane nekkee benn mais ñu dem xool ni mbaxane nekkul fenn benn problème bi léegi naan naka lañ koy réglé moo tax man daf may dafa am benn ñaari jàngat yu mu si am balaa may répondre ci sa si sa question moo di que ni xam nga toujours man euh, damay wax ne le conseil constitutionnel dafa nekk benn juridiction bu am solo boo xam ni bii waruñu ko tënk si ay domaines de compétence. lan mooy loolu. loolu moo di que ñu ne ko yow lii ak lii ak rek nga war a saytu leneen loo xam ne bokk ci waroo ko saytu. kenn waru ko limité parce que dëkk buy dox dëgg dëgg dëgg litige bu mën a am problème mën a am war na am benn juridiction boo xam ne bii moom moo ko moom moo ko war a saytu pour indi solution. kon loolu jar nañu réformer conseil constitutionnel. kooku moom bi ma ko yàgg bi ma ko yàggee wax sama mbokk conseillers yi xëy na am na si ñoo xam ne dinañ si dinañ si ñoo xam ne àndu si mais man dama wax ne dans un état démocratique question boo gis il faut mu am euh, et moom mooy la plus haute juridiction yow loo xam ne lii kenn. surtout en matière électorale en matière politique yow beneen juridiction beneen tribunal beneen cour amul compétence yow nga xam yow yaay yow yaay tum si kaw nga ne euh, ma tamit comprendre ma di kooku tax ma ni. dañ ko war a réformer maanaam compétence yi ñële amul yëpp yow da nga a ko war na yoo xam ne compétence la su fekkee ne ñeneen ñi. Mm-hmm. def nañ ne ñoom ci lii la ñu war a kii mais même domaine yoo xam ne yii yow dañ ne la yow yaa ko euh, moom moo ko war a def conseil ak domaine yoo xam ne yii. ñeneen yi compétent wuñ si moom moo ko war a jël dama ne da moom dafa war a am liñ naan la compétence de ses compétences hmm. moom moo war a ñëw toog na mu su amee mu xam ni xool na xool xool ne benn juridiction en fait amul compétence mu ne nag si boobaa nag man dama si ok mais dëkk noonu lay noonu mais noonu lay doxee mais mais mais professeur kon hmm. euh, kon su ma la déggee mooy conseil constitutionnel am na question yoo xam ne Euh, daf ci incompétent. mais dégg ah yàgg déggoo xanaa ñu la koy wax. yàgg na dégg naa ko affaire kii bi yi bi ñu demee fële. Ah, ala kulli xaal. pour ñu def euh, arrêté euh, kii bi levée immunité par Ousmane ah, Sonko. da ngay wax mu ne la je suis je suis incompétent. c' est vrai que moom dafa tënku lool mooy li ma la wax rek. kii loi organique bi da ko ñëw cité li nga xam ne moom mooy ay domaine de compétence. Mm-hmm. mais mu mu bëgg si tënku. man nag loolu la loolu laa wax ne il faut mu am évolution lépp mu nekk domaine boo xam ne bii. nekkul ci beneen domaine juridiction moom mu ñëw ne man xoola ñu bind kook ñu bañ ko bind je me déclare compétent pour mais pour xam lii ñu gisal affaire boobu suñu fa tolloo foofu ngay xamee nag dëgg-dëgg ni Sénégal. avancé nañu si déet am na am na am nañ gaa démocratie xam démocratie bi ci boobu nag lay gën a amee doole loolu moo waral tey jii problème bi. xam nga kii bi ñu demee mu ne man en tout cas man question bii daal je suis incompétent ba affaire bi loi bi ñu voté ko dugg na fi génn fi mais Maître Tine dafa dem ne eh CEDEAO ki nga xam ne kii euh, si njëlbeen euh, prérogative am compétence am nekkuloo ci affaire wu affaire affaire politique yi de. Mm-hmm. xam nga programme la en matière économique affaire état yeeg affaire yooyu ñuy dem muy évoluer ñu ne léegi violation donc euh, droit donc de mu des droits de loolu dëkk bu mu xewee. kooku dañu moom da si da si compétente pour wax ca mu yàgg si wax nag et puis on a même vu que euh, depuis ñu élargir domaine affaire domaine am boobu mais léegi en fait li muy gis si question wu question wu violation droit de l'homme moo ëpp sax li nga xam li moom moo nekk domaine traditionnel am de compétence léegi nag <laughs> foofooy foofooy foofooy wax ja léegi gars yi gi jéem a di lam lam naan wii am na loo xam lii war na ko wax am na xam waru ko wax parce que souveraineté état la mais dama ne sur cette question-ci et foofu na xam naa ni ñu bëri dinañ ma si xaw a dinañ ma si xaw a kon waaye nag dafa dafa am xam nga soo demee ba naan jurisprudence dégg ma de. Mm-hmm, bu baax dañ ne jurisprudence xam nga moom euh, euh, li nga xam ne moo ko tënk domaine de compétence yi leerul luñ ko lool. CEDEAO CEDEAO leerul moo di kenn rek. loo xam ne lii jàpp ni dafa nekk ci euh, violation ak ak yelleef doomu aadama moom da koy xam mais nag ni muy loolu noonu ni muy présenté wu ni muy amee mais bëri na léegi nag moom mooy ñëw apprécier ba xam ne est-ce que lii dugg na si loolu wala parce que loolu noonu c'est tellement élastique te moo tax gis nga mais gis nga question bi bu mu demee ñu naan de par ça kenn la wax ni loi bi jox ko jox ko jox ko compétence de li nga xam lii moom moo ko moom moo ko régir dañ naan la si jurisprudence am mooy que ni ni mu yàggee acté ci li mu yàgg acté lii bokk ci woon ma ne d'accord waaye ñëpp xam nañ tamit su fekkee nii rek euh, droit la ñuy wax ah aucune juridiction n'est tenue par sa propre jurisprudence moo di que ni tey jii mën nga ñëw atte nii mais suba nga atte neneen loo xam ne lii da nga ne woon démb ma ka <laughs> mais tey nga ñëw nga ne dama koy atte day évoluer te nag dafa xam ni situation Afrique noonu la demee moo tax kaay ma wax la de gars yi ñëw taxaw naa non dañ ko war a ref non fi mu nekk au contraire dañ ko war a dañ ko war a encourager gën ko gën ko encadrer parce que xam na la dafay nekk une juridiction boo xam bi sur juridiction de veille la ba nga xam bi lépp loo xam ne dafay xew si biir dëkk yi parce que kaay ma wax la de démocratie xam nga dama lay ket la mm-hmm. te nit ba toog moom day xool ak li nga xam moom moo ko arrangé lu moom moom moo koy renforcer pour mu gën di toog su boobaa noonu mu même su fekkee ne sa jar na sax mu violé ay yenn ay mais yenn ak yelleefu nit ñi. mais su boobaa nit ñi il faut ñu am nag fu ñu jooyee. d'accord mais professeur euh, CEDEAO dañuy wax ne Sénégal dafa xañ àq ak yelleefu euh, ay nit ñu participer bokk ci ay élections librement yow ma am fu ma la liir nga ne question boobu CEDEAO mënu koo régler. lan problème bi. munu ko régler moo di kii xam nga jël na tey décision mhm. foofu laay waxee jël na décision de te décision boobu mu jël dëkk yoo xam ne yëpp dañoo bokk ci CEDEAO. Mhm. da xoola décision bu mu jël. Mhm. danga ko war a appliquer. respecté da ko war a respecté. Sénégal da war a respecté. non seulement décision bi dafa am force obligatoire. mais dafa am également liñ naan force exécutoire bi ñu demee ba xool que ni à un moment donné force obligatoire rek la am ah léegi ñu ne léegi dafay am sax une force contraignante gis nga moo di que ni. boo ko deful mooy soo ko non kooku mooy da nga ko war ne par force. te kooku soxlawul muy jaar feneen. day mel nii rek xoolal décision bi ñi nga xam yi ñoom ñoo war a atte yoon te foofu lay neexee. ñi nga xam dañu war a atte yoon. waratuñu tënku si li nga xam bii mooy loi bi nga xam bii moom la ñu kii mais si décision boobu lañu war a tënku parce que dafay appliqué wu directement. ci te ñen ñoo ko war a appliquer su boobaa wax ma ko. ah xanaa Macky Sall. déedéet bàyyi leen Macky Sall. kan la kan la àtte. ah kan mooy àtte yi. Ah, suñu conseil conseil <laughs> jeex na gis moo tax ma la. xam nga wax ji fan lay neexee. Ah, léegi léegi léegi <laughs> léegi professeur conseil constitutionnel ñoom ñoo koy appliqué. léegi su ñu demee. ba mu am ay candidats yu ñëw taxaw déposé amuñu parrainage amuñu dara. su boobaa est ce que dañuy wax ne ne eh amu leen parrainage est ce que dañu appliquer loi bi wala dañu appliquer décision bi nga xam bi moom la kii bi wax nu mu téyeti euh, donc waaw CEDEAO su boobaa dañ ko war a appliquer loolu lay wax jë moo tax ma ni y a xëy na le président ah c'est un panacaf euh, panafricain mhm. hein moom mën na ñëw jël benn projet de loi ne eh abrogé nañ ko pare woote wax da nga gars yi kaay ñu waxtaanaat ci parrainage lu dëkk. mën na ko jaarale foofu. waaw pour bañ a wan ndetteeloom. waaw mais su fa fekkee defu ko mais nag su boobaa nag xool dañu dañu may bët a xel conseil constitutionnel xam nga moom mooy valider candidature yi. waaw te gis nga euh, si condition yi pour nga aller kii yooyu xam nga affaire yi da xoola da bokk. parrainage ba léegi nag su boobaa est-ce que <laughs> la lay jàpp. dana laajaat parrainage wala déet. Ah, ah. foofu lay neexee. waaw d'accord léegi nag euh, professeur. Hmm. président Macky Sall est-ce que tey. comme moom xam na ne décision bi lii ko CEDEAO wax daf ko war a jëfee. ci nii wala ci naa da jàpp ne man naa prox ndool politiquement jaarale ko assemblée national ngir dindi ko na ko yéen comme d' accordu leen ci bay dem CEDEAO ba pare élection locale yi mënuñu ko see organiser. loolu la ko décision bi wax loolu la ko wax. loolu la ko décision bi wax waaye nag xam nga mooy njiitu réew mi. Mm-hmm. léegi moom moo ñëw xool les voies et parce que moo tax man la am na ñaari voies yoo xam ni moom. da ci parti am yoo xam ni donc euh, conseil constitutionnel moom euh, affaire su boobaa moom mooy ndeyu mbilli gi. moom moo ko war a d' accord léegi léegi léegi professeur euh, li ñu bëgg a xam ci lu leer ci ñi ñuy déglu. CEDEAO dafa wax Sénégal nañu supprimer loi parrainage bi fii ak juróom-benn weer. Mm-hmm. léegi boo ko Sénégal supprimer wut. Mm-hmm. lan moo ko ci mën a fekk. loolu nag foofu la tamit la question bu amee solo xam nga su ma ne lee en fait c'est am na décision bi. dafa war a appliqué wu te dañ ko war a respecté par force ah kooku dañ war a déggee que nii souverainement la Sénégal da ko war a appliqué parce que dafa nekk ci euh, état membre CEDEAO yow nag doo ñëw bokk si mbir ñu dem décider loo xam lii même su fekkee ne arrangé wu la ngeen noo du ko def noonu déet da nga ko def mais su fekkee ne defoo ko eh yow ni suñu suñu suñu demoon justice maag yow dégg lu ma de ah ñu condamné la. yow comme par exemple ñu ne la war nga fay monsieur Camara léeg-léeg li war nga ko war nga ko jox sa kër affaire yooyu. Mm-hmm. mais soo demee ne sama kër kenn du ko laal. su boobaa nan lay def dañ lay saisir. Mm-hmm. kooku mooy en fait la euh, comment dire mooy la coercition de on t'oblige par la force à exécuter mais nag CEDEAO ah. Mm-hmm. Euh, su amoon benn euh, force benn benn pouvoir de police boo xam bi mën na fekk Sénégal xoj ko ne ko par force di ko def suba di ko def mais amu ko. d'accord mais euh, damaa gis porte parole gouvernement bi ministre Omar Gueye moom dafa wax ne loi parrainage loi bu baax la jógewul ci asamaan si buñ ñu ko jëfewutoon cent trois cent et quelques partis trois cent et quelques candidats mënuñu dem ci ay élections mais ñoom ba waxuñu ne. duñ ko duñ ko duñ ko jëfee. mais euh, Abdou Karim wax ji wax nañ ko de c' est que déggoo man la au début une bonne chose le principe du parrainage dafa baax te Sénégal xalaatatul dem élection te amul parrainage waaye il faut ñu tëggaat ka. ba il faut ñu toggaat ka ba lépp loo xam ne li dañ ko def xoola mun may ñëpp même égalité donc de chance pour gagner loolu rek la. tëggaat rek la comme ni ñu ko waroon tëggee ñëw jël la temps xam nga sànq yaa ko wax dañ ko def avec précipitation te tey ñi nga xam ne ñoo ko tëgg ñoom dem nañ ba gis sax ne am na ay ay euh, nu mu tuddati euh, ay euh, nu mu tuddati ay dysfonctionnement am na loo xam ne lii baaxu ca. Mm-hmm. ñoom gis nañ ko ba nga xam bi en fait plus dem di évoluer plus on commence à rectifier. Mm-hmm. mais kooku noonu suñ jëloon temps suñ jëloon temps. Mm-hmm. réfléchir si ñëw convier ñi nga xam ñoo la ñuy convier mais su boobaa day neex. mais nag defuñu ko mais nag on sera obligé aujourd'hui ñu def ko. et puis kooku si tey jii la boo xam ne occasion bu baax. ñu ñëwaat toog xoolal xel yi daal ñu ñëw toog réfléchir si. d'accord mais professeur euh, mbokk yi ñu fàttali yéen yéen ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité professeur Iba Barry Camara muy jàngale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu jëm ci wàllum droit privé léegi professeur CEDEAO. Hmm. CEDEAO euh, est-ce que am na benn crédibilité benn dayo bi. war na ko am de ah. déedéet du ma ma ko jox boppam. <laughs> déglu ma déglu noonu kaay ma kaay ma gis foofu nag moom il faut que il faut que ñu d'accord ca du ma ko jox boppam parce que CEDEAO xam nga nan la mooy état yi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko sëq ñoom ñoo ko ŋànk. léegi bu CEDEAO amul léegi bu CEDEAO léegi waaw léegi bu CEDEAO amul crédibilité kon entre guillemets mën ñoo wax ne chef d'état yi si bokk ñoom ñoo amul crédibilité. déet euh, Afrique si boppam. loolu la parce que nag kay ma wax la institution dafa am lu mu war a jëriñ te nag dañ ne euh, c'est une institution supranationale cest à dafa féete kaw état ya nit nag dégg nga dama ne. ñëpp si d'accord bokk ci. Euh, xam ne euh, nu ñu koy waxee est-ce loolu dañ ne loolu nekkul sëriñam xaw ma loolu nekkul taalibe loolu nekkul sëriñam. lii rek la moo nekk ni il faut ñu xam ñëpp af pays africain yi nekk nongo. CEDEAO CEDEAO nga xam ne gis foofu noonu. ay ñoo xam ni kay max la de ñoo xam ni ñii dañoo am expérience ñoo xam ñii kay max la ay magistrat lañu kii te suñu ñëwee toog ba statuer ah loolu dañ koy def seulement nag <laughs> bi mu liiree décision bi fo kon man kooku dama yaakaar ni rek benn maladresse la parce que soo ko soo ko liiree ñu ne wax nañ rétablir ah ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo bokkuloon si élection présidentielle yi si si si seen i droit mhm. ma dama ne kooku c'est une maladresse donc de la cour. Euh, ah, ban. cour nga fi xam cour kii la <laughs> CEDEAO. Mhm. cour de justice. léegi nii xam nga lu dama wax loolu. Mhm. parce que loolu noonu soo ko soo ko jàngatee day mel defa président présidentielle yi def baaxul. CEDEAO waaw loolu ah dafa mel ni man ah, mhm. ah waaw dafa ba nga xam ne bii dañu war a en fait euh, supprimer élection yi comme ça ñu joxoon ñëpp chance ñu demal élection moo tax ma ne kooku nag erreur la si ñoom ni ñuy bindee. waaw ah, dañu wax wax ne xoola dañ ne 6 mois fii la 6 mois et xam nga également affaire bi biñ ko ñoom bi ñu ko déposé euh, bi ko tin déposé c' était depuis 2000 2017 je crois mm-hmm. mais ñu dem ba si biir mais ñëw taxaw affaire en fait euh, en urgence la jaar jàll ñu ko en urgence ba décision bi kay la génn en 2000 en 2021. Mm. élection yi élection Sénégal présidentielle kañ la woon. kooku amatul léegi nag su demee ba ni xoola wax nañu rétablir ah donc ñi nga xam ne ñoom la ñu évincé moom la ñu ñoom ñoom la ñu écarté woon ci kii bi moom kooku dafa dafa mel ni dafay bëgg wax ni dañoo war a defar waaw te nag loolu kenn ñëpp xam nañ loolu mënul ne. waaw non mënut a mais mënut nekk ak lu war a mën a nekk la euh, maanaam lu xam nga tey dara mën na war a mën a nekk ci yoon. Macky Sall ne du ma ko def fekk nag yoon moo ko wax mais li CEDEAO wax comme li nga ko waxee nii euh, est-ce que yow gisoo ne tey bu doon réew la moo xamante ni tey am na fu démocratie bi toll du ñu organiser ay élections. déedéet déedéet waaye nag eh, eh, eh, kii Abdou Karim Abdou Karim je ne crois pas que loolu ah matériellement juridiquement moralement war na mën a nekk déedéet xanaa kay dañu xool ci kanam fu mu nekk nii li ci des pour mille 2024 ñëw kañ la. mooy bëreetul waay bëreetul yoo xam ne deux mille deux mille dix-neuf ba deux ñu ngi si kii déedéet moom koy déggu man la hmm. xoola euh, béy woy na mbuus suñu la ñu waxee. waaw béy woy na ah. euh, professeur euh, tey maître Abdoulaye Tine moom dafa wax ne Macky sàll dafa war a démissionner organiser ay élections anticipées loolu lan moo ci sa xalaat. <laughs> waaw mooy rek li ma la wax nii <laughs> li ma la wax nii parce que moom dafa jàngat li nga xam moom la décision bi wax. te loolu noonu je suis sûr que ni nekkul li nga xam ne bi moom mooy réelle volonté wu CEDEAO mais mais mais mais mais mais mais professeur sànq yow yaa ne CEDEAO ay kàngam ñoo fa toog. mais kàngam yooyu fay toog xanaa war nañoo mën a bind loo xam ne lu leer lay doon. waaw moo tax gis nga bindin bi dafa euh, dafa am ñaar nu ñu ko bindee dans un premier dañ ne. war nañu rétablir parce que soo nee war nañu rétablir ñi xam ne dañ leen kii. moo di que ni ñooñu war nañu gisaat seen gëdd. waaw mais après nag si euh, dispositif bi. Mm-hmm. mu ne nag euh, le Sénégal war na jël yëpp yëpp yëpp pour lan pour annuler abroger. Mm-hmm. loi boobu. kooku moo di que ni maintenant ça sera pour le futur et non plein en fait euh, donc euh, du am rétroactivité quoi. d' accord léegi euh, professeur dafa am ñoo xamante ni tey ci opposition bi génn nañ nee na nee nañu Macky Sall jamono ji il est illégitime. waaye nañ bàyyi loolu waaye nañ bàyyi parce que biñ ko doon fal biñ ko doon fal ah <laughs> y avait absolument aucun obstacle déedéet amul benn obstacle bu si amoon léegi on est on est en kañ lañ ko fa deux mille deux mille dix neuf te bi ñu ko doon fal kaay ma wax la de si loi bu lóor boo xam ne dañ ko voté ah moom lañ ko moom lañ ko moom fu mu nekk nii présentement il n'a rien xanaa nag xam nga léegi fan mu am solo. Hmm. ëllëg si waaye nag nañ bàyyi naan illégitime ak affaire yooyu eh il a été élu même su fekkee ni sax parce que xam nga mënuñ ñëw toog naa illégitime parce que xam na la mooy li ma la waxoon rek si kii njëlbeen ba ñoom dem nañu seetaan a seetaan a seetaan ba loi bi. xoola jàll ba si sur la base donc de cette de cette loi là ñu dem élection kay comme kay ñoom kay nañ préparé rek pour ëllëg waaye. d'accord léegi léegi léegi euh, professeur est-ce que tey euh, li CEDEAO wax mun a xajamal dara au niveau international euh, quinquennat Macky Sall bi. non c'est waaw waaw c'est que xam nga affaire de géopolitique la affaire de politique la rek dama lay wax ne nag Sénégal nag kàngam la Afrique kàngam la. Euh, le président Macky Sall am na nag rôle bu am solo bu mu ci joué seulement décision wu la benn organe CEDEAO la xam nga kii organe organe lan la organe juridictionnel waaye l' organe politique <laughs> mooy fii kàngaa bi président yi dikkee parce que foofu ñoom nag ñoom nag ñoom ñoo ñoom ñoo kaw yeneen yeneen yeneen organes yi te suuf te boobaa xëy na suñ doon wax sanction su ko Sénégal demee ba ne du respecter décision bi loolu la wax léegi nii CEDEAO amul aucune force contraignante c'est-à-dire aucun pouvoir de police pour contraindre le Sénégal à effet à exécuter effectivement une telle décision mais du point de vue politique par exemple euh, yenn poste CEDEAO yi wala yeneen poste yi nga xam ni yeneen ci organisation internationale yi ah Sénégal dafa bëgg euh, dossier bëgg bokk su boobu mën nañ ko écarter à cause de ça. kon kon bu ma la déggee mooy CEDEAO amul benn doole pour imposer ay nguur ñuy jëfee décisions yi leen di wax. moom laa lay expliquer loolu la ngay mais nag. loolu mais mënuñu woon ko yokk. mais diggu man la euh, lii mu statué te tey jii nii fi mu statué ah, xam nga kooku bokkul si li nga xam ne lii ni ko li ko nit ñi xamee woon. Mhm. léegi def na ko mais ëllëg si biir moom mi ngi. en fait la CEDEAO est en train de trouver donc les moyens de sa politique ñu xool effectivement nan la ñuy def su ëllëg su demee suñu décision yi mu wóor que ni effectivement dinañ ko exécuter. d'accord mais nag loolu évolution la. waaw mais mais mais professeur ba tey euh, CEDEAO euh, moom dafa yàgg a jox Sénégal ay décision moo xam mbiru Karim la wala mbirum euh, Khalifa Sall la mais li ma jaaxal bala ñuy waa ñuy wax ci loolu lu tax Sénégal du ko faral di jafe ah, xam nga nag euh, question de de régime la parce que souvent dañuy wax ne le Sénégal est souverain alors que CEDEAO su fenn su demee ba exister c'est parce que Sénégal dafa jël une parcelle une partie de sa souveraineté ñëw jox leen ko donc yow nag munoo ñëw euh, joxe bopp rocci lam mais mais lu gis nga professeur mais loolu il faut ñu xoolaat ko ah CEDEAO nag nañ tas CEDEAO kon bu dee loolu la di di di di di di xam nga mon cher ami hmm. mon c'est que xam nga des fois c'est pas en fait comment couperé la ñu war a agir xam nga même xale xale day day dafay juddu lu dox di raam di taxaw ah dox yi du kii mu tànk la si que xam nga il faut savoir donner du temps au temps loolu rek la moo tax gis na ma ne CEDEAO ni dafa am solo de te buñ ko kii ëllëg si biir day dem ba gisal yii yëpp ay mauvais souvenir lay nekk. d'accord mais xam nga tey professeur euh, man soo xoolee man bëri naa ci ay morom yoo xamante ni man bokk naa si ñi nga xam ne man gisuma euh, crédibilité CEDEAO gisuma njariñ li. li pour tey li tax loolu. moom mooy dama jàpp ne euh, njiitum réew du caaxaan soo nekkee njiitum réew nga ne bokk naa ci benn kuréel mooy déjà càmbar nga ba war nga saa bokk. wala damay damay damay damay rectifier wax ci du njiitum réew ba mooy bokk ci kuréel dëkk ba. mais yaatu. de de de may ma rek may ma rek may may ma. dëkk ba ñoo bokk ci kuréel. mais yaa fa représenté dëkk ba. mbay xam nga wax ji xoolal su ko waxee bu leer rek bu neex. léegi xam nga xam <laughs> xam nga professeur. <laughs> tey yow yaa fa représenté dëkk ba. mais boo fa représenté dëkk ba nag mm. professeur. Mm. yow mu leer na leen foofu ay kàngam ñoo fa toog. Mm. ngeen di toog waxtaan ci seen biir. bis ñëw nga xalaat koo jiite wala sa nit jiite ko wala sa doomu réew mm-hmm. mais kuréel boobu war nga koo jox wor ma mm-hmm. war nga koo jox benn benn benn benn gëdd bi te liñ gis mooy CEDEAO dafay wax loo xamante ni maanaam mais kenn du ko faale beneen bi tamit mooy CEDEAO ñi ñi bokk ci CEDEAO boo xoolee dañuy wax ne kenn ña sa bokk euh, ña sa réew ya sa bokk ña leen fa nekkal mënuñoo joxe yenn leçon de morale ci yenn yi yooyu yëpp euh, mooy rek li ma la wax li nga wax noonu dëgg dafay nasaxal institution bi. bu baax waaye nag dama la wax la tey jii su nasaxee. Hmm. ëllëg dina baax dina baax c'est xam nga xam nga man en fait surtout mbir du ñu ko buñ ko apprécier de manière ponctuelle c'est vrai que y a beaucoup de choses à dire te kaay ma la nag am na seen aspect yoo xam ni kaay ma la ah dañu condamné état état di fay am na ñu bëri yoo xam ni dañ ne dañu condamné état état boo xam ne bi la état bi si boppam ak benn citoyen. Hmm. mais dañu ko daan état bi day fay ay dommages et parce que ba euh, ba fu mu nekk nii par exemple xam nga Khalifa Khalifa Sall. ah Khalifa Sall xam nga état war na ko fay ay millions. Mhm. xaw ma ne ndegam jëli na ko wala déet mhm. waaye war na ko jëli. ah, ah. <laughs> waaw. d'accord jërëjëf euh, professeur euh, Iba Barry Camara di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu jëm ci wàllum droit privé. Euh, léegi nag euh, professeur benn question bu ndaw ci loolu ñu jaar jàll ci leneen xam nga tey ñun bu ñu sañoon suñu justice su réew ku fi am jafe-jafe. Mhm. justice bi àtte la comme ni nga ko waxee nii bu doon tey maître Ablaye Tine mhm. am na possibilité dem ci conseil euh, constitutionnel amaana fii mu yegg du fay du fa yegg mais Sénégal tamit nemmeeku naa ne ñu baree bari du ñu am dëgg ci suñu justice bi mais bu ñu demee bitim réew. dañ fay faral di am dëgg lan war a loolu. mais li ko a kay mooy lii rek xam nga sànq euh, en fait dañ ko sax junj xam nga li ma lay ne la su ba toll foo xam ne fii dafa ne benn dossier boo xam ne bii amul benn beneen juridiction boo xam ne bii mën na wax ne compétent naan pour xam ko pour connaître de ce dossier là pour gëstu si moom moom moo war a jël. ah d'office fils ne eh puisque affaire bi euh, c'est un cas boo xam ne bii xëy na prévoir wuñ ko lu ñu prévoir rek man maa ko jël en charge su su gisee loolu su demee li ma wax rek moo lay gisee démocratie foofu nag lay lay évoluer à grands pas. Hmm. moo tax man damay ñaax ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy noo donc noo change ñoom waruñu am limite xam nga la moo seen limite. loo xam ne lii dañ ko def expressément ne lii si telle autre juridiction moom la kii mais dès lors que mu nekk affaire politique euh, affaire électorale loo xam ne lii réglé wuñ ko amul benn code bu ko réglé moom dafa war a ñëw xoola ne man je suis compétent su autrement dit suñ ko saisiré il ne doit pas se déclarer incompétent parce que si ce décret est compétent alors que amul une autre une aucune autre juridiction boo xam ne war na ko xam mais kooku dafay nasaxal mbir yi loolu rek la. Uh-huh. day yàq deru Sénégal daal voilà. d' accord léegi euh, professeur ñu wax ci euh, fichier électoral bi ñoo ngi koy euh, audité Karim Wade ak Khalifa Sall seen cas lan moo ci saxalaat. affaire bu doy waar mais nag xam nga depuis quelque temps dañuy wax apaisement da gis nga. xalifa xalifa sàll Karim Wade seen problème xam nga la dootul problème mu droit problème politique la te ñu waa politique yépp axlu politique li ñuy wax ñoom ñoom méngoo ne il faut nag ñu apaiser wu pour Sénégal nekk ci stabilité bi nga xam ne lañ ko xamee woon li passé passé na lu dëgg euh, le président hmm, mën na ñëw jël décision wala ay décisions yoo xam ne dina permettre Karim ak Khalifa war mën a participer désormais ah ci élection yi ñëw mën a inscrire ba pare mën a postuler waaw parce que loolu noonu suñu ko deful dina na yu bëri. d'accord léegi mais bu ñuy def. moo tax moo tax man euh, Abdou Karim Abdou Karim. xam nga sax dama ne ak lu ak lu politique bi loolu moom mooy seen prochain combat. d'accord te foofu noonu kenn war si xoolal mooy sa sama mu sama intérêt benn intérêt rek mooy l'intérêt de la démocratie. d'accord mais léegi euh, professeur bu dee ñëw ngi audité fichier électoral bi suñu paree te Karim de Khalifa nekku si lan mooy nekk conséquence yi si ñoom. am na ñoo xam ne ñii ba tey nekkuñu si <laughs> te euh, suñu tujjee suñu tujjee kii bi euh, phase kii bi inscription affaire yi dañ leen si ajouté rek hmm. lii rek la. d'accord amul benn problème bu si am loolu. d'accord mais euh, est-ce yow jàppoon nga ne tey ci dialogue politique bi waroon nañ ko mën a waxtaanee ba déggoo am si. mais moom laa lay wax parce que gis nga dialogue bi soxla woo sax président parce que heureusement dañu dañu euh, dañu féliciter président bi le mu organiser dialogue boobu mais dans le principe mais est-ce que dialogue boobu esprit bi nga xam ne moom lañ ko waroon organiser est-ce que si esprit boobu moom lay doxee ba tey parce que dafa nekk rek comme su fekkoon dañ naan assise politique moom lañ ko tuddee li ñu naan dialogue politique moom lañ ko tuddee assise politique moo di que ni ce sont les partis politiques. affecté kii bi également kii nu mu tuddati euh, euh, société civile ñoo ñëw toog ñëw xool politiquement qu'est-ce qu'il faut quest manque à notre pays pour que ñu jox ko ko wala li nga xam ne ni dafa nasaxoon ñu ñu gën ko renforcer mais loolu su amee su fekkee parce que xam nga dama ne wax na la chaque fois dama koy wax affaire politique affaire politique Abdou Karim dama koy wax saa su ne affaire de gentleman la am na foo xam ne fii waroo ñëw xoole toujours yow sa intérêt waroo jël ay œillères ne man sama intérêt lu dul sama intérêt rek ma xëpp ci suuf déedéet am na foo xam fi suñ fa tolloo yow su fekkee ne yow da nga ne rek yow da nga war a jiite da nga bëgg jiite xam nga la moo la war dañu ñëw xool d'abord la mooy intérêt Sénégal même su fekkee ni yow da nga war a sacrifier say intérêt pour l'intérêt du Sénégal nga def ko gis nga tant que tolluwuñu si niveau boobu dama lay wax ne la démocratie bi ñuy wax ah nga xam bi ñan ñoo ko war mooy les hommes politiques dama wax ne mais day métti ba duñ duñu atteindre si benn niveau. d' accord jërëjëf euh, professeur Iba Barry Camara di jàngalekat lu jëm ci wàllum droit privé euh, mbokk yéen a déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee euh, jàpp jàpp 16h léegi nag professeur ñu wax ci beneen candidat ndax xam nga démocratie aussi ku koy wax mënuloo ñàkk ba ñu tudd li nga xam ne mooy mooy ay élection Euh, ñu gis euh, kenn koo xamante ni tey mën nañoo wax ne euh, kenn mënut a nattable ne jamono ji am na benn taxawaay bu dëgër ci ci ci ëtt politique bi di Ousmane Sonko ñu koy tudd si affaire siif ba jamono ji ñu def ko contrôle judiciaire moom sax dafa jàpp ne dañu ko bëgg a xañ vingt 2024 beneen bi tamit dafa jàpp ne dañu ko bëgg yàqal lu jëm ci wàllum politique ndax ma ngi njort ne mën naa commencé def ay tournée ñu di ko wooloo yu demee noonu contrôle judiciaire bi fan nga jàpp ne fa la jëm ak lan la ko mën a yàqal. waaw contrôle judiciaire dafa nekk ci euh, euh, processus en fait euh, juridictionnel ou alors judiciaire en matière pénale ñëw na en dañ ko tuumal ci benn infraction mu def léegi affaire boo xam bi dafa laaj saytu maanaam laa ñu ne ko en fait yow mën nga dem mais après dina la woo parce que bu ñu fàtte ni bu ñu fàtte ne le juge d'instruction ce n'est pas une juridiction de jugement mesure bi mu jël contre kii nu mu tuddee euh, ci contre Ousmane en fait euh, mesure rek la boo xam ni bii ça n'a aucun effet par rapport ak euh, nu mu tuddee ci représente en fait Sonko dem aux élections ou non mënu ko empêcher dara. fu mu nekk entre Sonko la ak le juge d'instruction li mu ko wax ne ko conditions yi ne nga war respecter ce contrôle bi su ko respecté jeex na Sonko lu ko neex mu def leneen loo xam ne lii méngoo na loolu c'est-à-dire nag fan loo xam ne li doon na ko doon nasaxal mu privé ko ne dootul mën a def élection mooy su ñu demee nag ba ne ko yow il faut ñu dem juger la ñu dem juger ko ne ko effectivement li ñu lay tuumaal yaa ko def te décision boobu mu nekk une décision définitive et une décision irrévocable su boobaa nag lañ ne nag mbiram moom féete na boo dootul mën dootul mën a dootul mën a parti mais tant que eggaguñu foofu suñu demee ba élection ñëw ah nu mu ci tudd euh, kii bi nu mu ci waaye procédure bi évolué wul su boobaa dafay ñëw représenté wu te amul dara dara dara dara lu koy tax mu bañ a évoluer. mais si mbirum viole euh, bu ñu la defee ay euh, comme par exemple tey ay sursis ndax peine yu mel noonu comme par exemple tey. sursis trois mois sursis euh, su fekkee ne vol moom mun nekk. mu nekk sursis waaye sursis vol viol. Ah. léeg ko crime la <laughs> mun nekk. kon maanaam Sonko dañ naan ko yaa ko def wala defoo ko rek. loolu loolu la su fekkee ne kay. dem nañu ba juge d'instruction bi ñëw saytu parce que kay ma wax de. xam nga gars yi dañu yaakaar ni après il il affaire il va être jugé non non parce que affaire bi ñu ngi koy saytu mais nag su demee ba saytu saytu saytu parce que moom saytuwul pour euh, dugal Sonko saytuwul rek tamit pour génn ci Sonko day saytu pour ñëw xool ndegam est-ce que liñ koy tuumal am na walla amul. su demee ba xam ni nag li mu xool si dossier bi li mu am si élément yi preuve yeeg indice yëpp loolu wane que ni Sonko defu ci dara wala dañ koy jéem a taxal rek su boobaa dafa naan eh dafay jox benn ordonnance de non lieu. mais mais tey juge d'instruction bi su xoolee. Hmm. cay élément hmm. na viol amul foofu. Hmm. waaye rapport am na foofu seq nañ dara. boobaa mën na koo classé sans suite ndax plainte bi. viol moo la nga def parce que kaay boo wax la parce que am rapport est-ce est kooku infraction la. moom lañ ne ko mu saytu infraction euh, mu saytu viol su fa viol nekkatul kay leneen lu fa mën a nekk yoonam nekku ca. mais juste juste bi mën naa gis viole ci li mu enquête ñu dem juste de siège yi ne ñoom li ñu gis ak li avocat yi wax gisuñu fa viol. moo tax ma ne la nag le juge d'instruction nekku juridiction de jugement xam nga kan mën a juger pour ñu ne effectivement lii moom xoola fa dal fa la mooy que ni la juridiction mu dem ba ñu taxawal nag juge su fekkee ni euh, kii def na benn ordonnance euh, euh, donc waaw mm-hmm. ne en fait kii de renvoi mm-hmm. bañ taxaw ba jugé ko nag mu ñëw taxaw ñu ne ko li ngay def est-ce que yaa ko def juge boobu su dañoo gis ne contrairement li kii wax le juge d'instruction mm-hmm. loolu amu ci mën nañ ko mais mën nañ ko baat ah, kii non non amul benn problème loolu mais juge d'instruction bi du tënk fenn yeneen juge yi pourquoi di amul benn rapport am ñu benn rapport mosoo gis benn juge d'instruction mu ñëw taxaw si benn jugement mosoo gis de. waaw ah, mais mais ñuy juge yi àtte du ñu sukkandiku ci euh, li leen juge d'instruction bi jox. bien sûr bien sûr parce que le juge d'instruction dañ ne ko mu saytu dafay rechercher ay preuve ay firnde ay indice moom dañ ñëw teg si si ci dossier bi léegi nag su boobaa su ñu demee si si jugement bu ah léegi en fait le procureur si foofu lay sukkandiku moom tamit. dégg nga wax ci léegi nag mais il y la défense les avocats ñoo euh, ils vont essayer en fait ñëw. convaincre les waaw que ni li ñu amul par exemple nii mën nañ dem ba euh, le juge d'instruction jël benn acte boo xam bi gars yi d'accord luñ ci euh, donc kii nu mu tudd waaye défense bi luñ ci ah. mais mais mais kaay mox ñu ne ko dindi ko mu bañ ko dindi déjà que déjà au niveau donc de l'instruction seulement donc ñoom am na ñu possibilité def ay appel. ay pour pourvoi en cassation par rapport ak acte yoo xam ni yi kii bi nu jël da koy jël te kooku ba tey egguñu jugement de moo tax ma ni la moo tax ma ni la mbir bi mën na mën na jël temps de ça dépend nag maintenant suñu demee nag ba ju ba si kii ba nu mu tuddati ci euh, juridiction donc de jugement yi léegi nag bu ñu bu ñu bu ñu fàtte ni même en en matière criminelle léegi appel day am su boobaa appel su amee après mu am pourvoi en cassation donc c'est-à-dire que cest di dire que Sénégal am nañu benn euh, organisation ah juridictionnelle boo xam ne bii donc fera tout pour gérer ak ak yelleefu doomu aadama yi. d'accord mais mais kaw Ousmane Sonko bi ndax jàpp nga ne euh, maanaam classé dossier bi sans si njort nga ne war na see maanaam. ah njort. waaw si li nga dégg yow. Eh, eh, Abdou Karim lan lan dégg Abdou Karim bu ma jéem a dégg loolu teel gis nga Abdou dafa nàkk nag <laughs> non en tout cas daal li may wax man ah moo di que ni c'est un dossier qui en cours mu nekk le juge waxuma di leen lan la gisee su fekkoon ne doon na ma ko doon na ma ko jox naan ma eh, Iba Camara mhm. <laughs> apprécier ma lii su boobaa soo ma posé question bi. mën la lii mais li muy def xaw ma si dara dara dara kon kay su ma si prononcé xanaa kooku moom mooy moom moom mooy ñeme sa borom. Mhm. d'accord euh, jërëjëf euh, professeur Iba Barry Camara léegi tamit euh, mbiru Ousmane bi ba tey manifestation yi ñoo ngi doon wax ay commission d'enquête boo xamante ne état bi nee na ñoo ngi koy amal ndax jàpp nga ne dina mujj fenn ak li am il faut am ñu nekk responsable quand même si ñu ñàkk seen bakkan ci ak ñu fi yàqule seen alal. commission d'enquête ma je présume dama yaakaar ne fait yu gravé nii ah du am ñu wax ko ñu bañ ko wax te enquête amul te enquête bi ñen ñoo koy def ay dañu xarañ ñoo xam ne mu loolu seen liggéey commission commission d'enquête boobu lan la ay particulier comme ay Iba Camara ñëw taxaw naan waaye yow loo yoo xam ne xamuñ si affaire enquête dara pour lan à quelle fin man de ah ñoom xëy na ñoo xam lan lañ ci jublu waaye man de Iba Camara ah affaire yu grave nii ay du commission d'enquête comme su fekkoon ni affaire boo xam ne bii la bon non nañ ko jox ñi xam ne sont les te xam naa ne ñoom ñi ngi si ñi ngi def enquête te ñoom suñu defee enquête ba def seen rapport mais le PDR commission commission d'enquête pour lan moo je ne vois pas la pertinence nga baal ma nag je ne vois pas la pertinence on a des organes yoo xam ne yii ñoom loolu seen liggéey di def enquête di saytu di gëstu et puis ce sont des experts des professionnels yow dossier bu sensible nii nga naan da nga ko jox ay ay comme ça pourquoi non je ne vois pas véritablement euh, kii jël mesure boobu bëggoon naa mu expliquer ma moom loolu noonu. fa waaw léegi professeur ñu jeexal ci euh, question bi waxtu wi euh, jot nañu expliquer nga si ay yoon yoon. ndax Macky Sall war naa def euh, war naa poser wu sax waxuma def beneen mandat mais poser candidature ci élection 2024. xam nga da dégg war wax ji suñ koy suñ koy wax man affaire bi man. xool ay relevé de wallaay te xam naa ni xam naa ni. Hmm, notre président. Hmm, notre bien-aimé président, je sais que il ne prendra jamais le risque ñëw di def loo xam ne defuwul moom moo proposé yooyu yëpp parce que kaay ma def mu jógee mi ngi commencé yàgg ak ñun nag te il nous a fait beaucoup de promesses comme quoi que ay réformes yu bëri réformes yëpp yëpp moom moo ko enclenché ah nag doomu doomu ne ba si biir mu ne man loolu ma defoon sax léegi xoola ba naa ko wax waxeet du ko def. non du ko def parce que je sais que soo demee ba mérité nekk président au Sénégal am na yenn xam nga. Ah, waaw mais professeur lu tax ku wax ku wax Macky Sall war naa def beneen mandat ñu neexal ku wax wut def beneen mandat boo bokk ci après ñu dàq la. Ah, kooku nag kooku nag aw ma jàngat moo xam lan nag lan moo ko waral mais maanaam xam naa li ma ci jàpp mooy hmm, euh, su ma déggee ñi nga xam ne ñii. ñoom la àndal ñoom la mos a àndal ah je vais citer Mimi ah la grande royale man noonu laa koy tuddee Mimi Touré c'est la grande royale ak euh, sama grand euh, ABC ñoom wax nañu ne Macky non xam na ni pare na si Macky si boppam wax ko bind ka waa su boobaa su boobaa dama la benn affaire de normalement waru ko def moom xam na ko waaye nag xam nga mag yi <laughs> kaay ma bu baax déglu ma nag déglu ma de xam nga suñ si tolloo bu si cëppaandaw ba xam nga day wax comme amoon na amoon na li fi li fi xewoon si réduction mandat bi si cinq yi xam nga da ko fekkoon si benn mandat sept ans mhm. mu dem moom mu ne dama koy réduire cinq ans mais bu mu sëggee dal le conseil constitutionnel le conseil lu mu ko wax dama amoo sanction laa loolu du dëgg mu ne nag ah kon ma je suis lié conseil constitutionnel nee na il faut ma ne sept ans donc il faut ma def ko donc cinq ans yi mën a promettre du ko def léegi su demee ah problème loo xam li warul woon nekk problème ñu def ko problème point boobu point wu troisième mandat bi ñu def ko problème xam nga su nekkee problème moo di que ni il faut que ñu euh, ut leerlu leerlu mooy kan kan moo ñu war a leeral kay mbay suy demee nag eggal ko si conseil constitutionnel su conseil constitutionnel ko <laughs> eh, en vérité ah sa premier mandat boobu nga def avant ñi lii di ñëw nii bokku si kon yow yaa ngi woon sa premier mandat donc su boobaa day ñëw na ah man de waxoon naa ni ah du ma def troisième mandat waaye nag en vérité puisque euh, suñu conseil nee na su boobaa je suis obligé ba nga xam ne boobu nag moom dafay ñëw dédouané ñëwu parce que dama lay wax ne la xam nga affaire boobu thèse boobu. yàgg yàgg naa ko defar man xëy na su su demee noonu on aura rien à reprocher en fait au président moo tax ma ne la ci conseil constitutionnel la la lépp reposer in fine loo xam ne lii mënoon na ñàkk. d'accord yow li nga liir yow en tant que professeur droit privé. Hmm. li nga liir li nga liir. Abdou Karim Abdou Karim yow yaa mu gën a xam yow ñaata laa si si seen plateau ak yeneen plateau yi laa ñu nu xoolal gis nga ko nu xoolal aw ma si xel sàccan xoolal naan wat non. dafa leer ni mais ni mais non. ni midi. oui oui na dog. ni warul benn mandat. <laughs> waaw. non loolu fii kay fa dafa leer naññ ni midi sa xamal la. xam nga gars yi dañuy taxaw di confondre durée mandat ak mandat. soo ne woon yow soo demee li ma may wax rek exemple jox soo ñëwee fekk euh, suñu président nga ne la président yow bi nga nekkee euh, seen kii ba tey ñaata ñaata mandat nga def lu mu lay wax. waaye mais yow yow après kenn ku def ñaari mandat pare nga ca kon kon yow pare wu ca. mais wax ne la loi xaw ma non rétroactive. kooku application immédiate la bu ñu eh nañ bàyyi affaire yooyu de waa Diaw nañ bàyyi yooyu ku wax xam na ko. d' accord léegi jërëjëf euh, professeur waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. c'est un plaisir maa ngi gërëm mbokk yëpp. su fekkee nag wax naa fi loo xam ne lii eh bien dégg maam eh, méngoowul ak li nga xam ne moom la gars yi bëggoon dégg maa ngi jéggalu waaye nag daal lii nag moo wax daal ay conviction rek la nag. je peux me tromper parce que nit rek laa. d'accord merci euh, professeur euh, Iba Barry Camara di jàngale lu jëm ci wàllum droit privé ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru mbokki li mu nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot ci rajo réew mi FM bu 15h jotee jàpp 16h Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi Mamadou Diawo ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.